salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar jërë ngeen jëf mbokk yi taamu xel seen mobile TV Al Azhar Touba dal leen jàmm ci li gën a ci xibaaru màggal Touba édition 2015 bokk na ci yooyu lee xibaar njiitu réew mi di président Macky Sall ñu koy séntu ci dëkk bu sell bi Touba ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre bii ñu nekk ca ngoon mu fas yéenee fanaan ci dëkk bu sell bi Touba loolu le tax ba gouverneur du palais di colonel Fall ak ay ndawam dikk ci dëkk bu sell bi Touba ngir daal di xool yenn anam lañ war a dalalee njiitu réew mi ci euh, njiitu réew mi ci dëkk bu sell bi di Touba daañ ko xool ci biir euh, xibaar yi na mu gën a yaatoo li daañ ci li nga xam ne mooy marche bu yaatu bu nga xam ne nii waa njaareem def nañu ko ci benn fan ci weerub safar ngir daal tatagal waaye wane fësal ne ñoom ñooñu lee euh, ci màggal gi la ñu gi di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul def nañ ca dëkk boobu le fukki at ak juróom li daañ ci li nga xam ne moom moo jëm jëm ci université euh, du màggal di ab jotaayu xam-xam ak waxtaan boo xam dañu koy amal te pencum yi bu Mbacké euh, bis bu nekk nag daal di koy tuddee kenn ci euh, kilifa yoonu murid yi atum ren ji daañu xool kilifa yi yan matukaay la ñu jël ak ñan la ñu fas yéene tuddee université du màggal boobu la daan ci ànd ak Serigne Abo Mbacké mi nga xam ne bokk na si njiit yi ci biir xibaar yi ab Ablaye Diouf Sarr jëwriñ ji nga xam ne moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllum environnement ak lépp nga xam ne moo jëm ci wàllum aménagement du territoire moom nag ñëw na ci dëkk bu sell bi ci Touba nag eh, ci mbale mi nga xam ne dañu kon amal ci ñaari fan ci weeru safar bi ngi daal di indi ay jumtukaay yoo xam ne dañu koy jàppale taalibe yi eh, ba liggéey boobu lay daal di gën a mën a yem li itam daan ci toftal li nga xam ne mooy jëwriñ ji gàllo lépp lu jëm ci wàllu énergie ci réew bu Sénégal di Thierno Alassane Sall moom itam indi na ay eh, li nga xam ne mooy mbiram ci màggal Touba di fësal ne daal li nga xam ne mooy téeméeri kilomètres yi nga xam ne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 jaa ngeen jëf ci teewlu gi ak ci bàyyi gi xel ci seen mobile TV a Azhar Touba nañ leen ko waxee woon ci junj gi yaatal gi noonu la ñu koy daal di dooree ci xibaar yi gën a fës ci màggal Touba édition 2015 njiitu réew mi di président Macky Sall nag ñi ngi koy séentu ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weerub novembre bi ñu nekk ca ngoon ga lay fas yéene aksi fii ci dëkk bu sell bi Touba daal di fanaan xëy yendu ba ngoon daal di tàggoo loolu nag tax ñi nga xam ne ñoom ñoo di. ay ndawam jiitu si nañ fii rawatina ki nga xam ne moo di gouverneur du palais du colonel Fall ñëw daal xool yan anam la ñu gën a mën a dalale li ki nga xam ne moo di njiitu réew mi ci dëkk bu sedd bi Touba ak itam séjour bi nga xam ne fas yéene na koo def fii ci Touba ci yen anam la ko fas yéene defee ñu daal di koy gis noonu ci image moom ak ay ñoñam ñu daal di nekk ci résidence Khadim Rassoul rek di xool Euh, li nga xam ne mooy mesures yi nga xam ne war nañu koo jël rawatina ci lu jëm ci wàllum kaaraange gi tam naka lañ leen war a dalalee rawatina kilifa yi nga xam ne war nañoo ànd ak njiitu réew mi euh, ci fi nga xam ne moom moo di ci dëkk bu sell bi ci Touba jombul ne daañ ci dellu siwaat ci suñu yeneen i xibaar di daañ ci daftal li nga xam ne moom moo jëm ci marche bi nga xam ne moom moo amoon ca Njaareem Ndiarème nag di dëkk boo xam ne nii am na taarix lool ci yoonu murit ndax ki tedd ki di Serigne Touba def na fa fukki at ak juróom ba tax nag euh, askanu Ndiarème boobaak léegi juróom ñaari at a ngi nii bu benn fan ci weeru safar jotee ñu di àndandoo ñoom ñëpp dugg ca biir dëkk ba daal def ab marche bu yaatoo yaatu def ay bernde jàng xasida def ay waxtaan yu am am solo jëmale ko ci ku tedd di Serigne ci nekkin wi nga xam ne nekkoon na ko foofale ca Njaareem loolu nag ñu ko amal di waa daayiratu Safinatu Amaan ñoom nag ñoom ñoo amal boobulee dox tàmbalee ko ci kër gu mag dugg biir kër sëñ Mbay Sarr jàll kër ci Ibrahima Fall daal di waat dellu si waat fi nga xam ne moom moo di ca kër gu mag ginnaaw loolu nag meeru dëkk bi nga xam ne àndoon nag euh, askan wa ca boobule marché yëkkati na ay kàddu di wax solo soo marché boobule euh, di ki nga xam ne moom moo di euh, Malick Fall di meeru Njaareem ñu lu ko waaw kontaan rek di dellu di sant sëñ Touba rek di sant mbooloo mi nga xam tey ñu ñëpp ñu ànd di sant sëñ Touba di sant encore euh, comité d'organisation bi di sant population Ndiarène xam ni liñ Sëñ Tuubaa def amuñu fayam donc dañ leen antimatérie pour dox woon ñëpp ni tey dina war a sant Sëñ Tuubaa loolu rek moo tax moo andi moo sama dox tey. waaw ñu ngi ciy liggéey ak ñoom bu ndax vraiment solutionné nañ ci waxtaan ak ñoom ñu ngi liggéey ak baax moo tax fan yi def nañu ay euh, nettoyage général dëkk bi ñetti fan day def ay don de sang. quand même pour que pour ci màggal gi amoon ah, ñu ngi sukkandee dëkk bi en même temps def ay safar yu bari en même temps jàppale oto yu nga xam ne si nga pèlerin bi ak vraiment population bi ak comité d'organisation bi. ba tey a ngi bàyyi xel xibaar yi gën a fës ci màggal Touba édition ci seen mobile TV Al-Azhar nañ leen ko waxee woon jëwriñ ji di Ablaye Diouf Sarr di ki nga xam ne moom moo gàllu lépp lu ci wàllum environnement. ak l'aménagement du territoire moom nag ñëwoon na ci dëkk bu sell bi di Touba ci ñaari fan ci weerub safar bi Euh, ngir daal di rek euh, àndandoo ak taalibe yi daal di euh, def li nga xam ne moom moo di bale général bi nga xam ne dañu koy def ci dëkk bu sell bi ci Touba day dindi bépp takk-takk boo xam ne nii mi ngi ci biir dëkk bi ngir waajale ko nga xam ne moom moo di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bi Ablaye Diouf mu ñëwee saafuwante nag Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne nii Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif nga xam ne moom moo lépp lu jëm ci wàllum bale moomulee waaye itam jox na ko li nga xam ne nii moom moo di ay ndimbal yu jóge ci nguuru Sénégal ci ay jumtukaay yoo xam ne daana mën a jàppale taalibe yi ba ñu mën a gën a def liggéey boobu lee ñu teewlu Euh, ministre bi di Abdoulaye Diouf Sarr. pour euh, indi suñu contribution si liggéey bi liggéey Sëñ Tuubaa nag liggéey la boo xamante ne loo si def rek da si fekk borom parce que borom defar na mbir bi ba pare. bon donc dañu ñëw rek damay symbolique indi lii am na ay camion am na ay euh, pel am na ay benn mais aussi am na matériel léger boo xam ne dañu ñëw rek pour jàppale ko comité bi mu nekk loo xamante ne président daf ñu siy ñaax ko santé nañu bu leen si jokk parce que mbiru Touba moom nekk na loo xamante ne du lu ñuy tënxam bon dëkk euh, ñu ngi euh, rafetlu lool ak kay bi ñu fi fekk parce que euh, sëñ Cheikh Abdou Latif ak sëñ Cheikh Baar Lahat accueillir nañu envoyé nañ message bu am solo boo xamante ne danaa ko jottali président de la république muy message bu ñaan ak message encouragement en tout cas donc état bi li xamante ne moom lañ ñu digal te suñu kilifa Macky Sall digal ñu ko mooy lépp lu jëm si Touba rek lu gaaw si mu nekk loo xamante ne kenn du ko sàdda jërëjëf ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr beneen naataangoom di Thierno Alassane Sall yor li nga xam ne moo jëm ci wàllum énergie itam moom itam euh, dikk nañ ci dëkk bu sell bi ci Touba daal di xool li nga xam ne mooy euh, centrale électrique bi nga xam ne moom moo nekkee ca Ngaabu waaye itam euh, àndandoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore li nga xam ne moom di wàllum Sénélec ak yu ni ñu dugg ci biir dëkk bi xool euh, yan anam la ñu war a gën a mën a defaree màgg gi daal mu gën a mën a mucc ayib te benn courant du am euh, lenn ci lu jëm ci wàllum courant doom am jafe-jafe moom mi nga xam ne moom mooy jëriñ ji di Alassane saal nag yëkkati na ay kàddu di fësal ne lamp yi nga xam ne day faral di tàkk bëccëg ci dëkk bu sell bi Touba loolu le mën na indi gàllankoor ci li nga xam ne moom moo nu ñuy bi waaye itam téeméeri kilomètres yi nga xam ne ni dañu ko daan sàkku at mu ñu koy dugal di ko yokkee mbirum courant bi ci dëkk bu sell bi di Touba ñetti at a ngi nii amut li tax mooy bu ñu ko defee itam du ñu mën a daal améliorer li nga xam ne moom moo di qualité énergie bi moom moo tax ñu daal di dakkal mbir mu ni mel ñu teewlu jëwriñ ji di Thierno Alassane Sall ci micro la Touba waaw ñu ngi d'abord sant yàlla ba mu ñu mayee ñu teewaat euh, ne ngeen si ren ba di waajal màggal gi di wax ni rek euh, euh, ci li ma gis ak li ma suivre fan yëpp mais li ma gis tey ci réunion bi nga xam ne moom lañ doon dañ ko def sax à l'avance par rapport à dañ ko daan nañ ko daan defee pour gën a am temps gën a xool fu ñu toll ci waajal waajal gi te bu amee yi ñu ci war a soppi ñu war ko soppi à temps donc ci li ñu gis daal euh, ñu ngi sant yàlla bu baax xam ne que matuwaay yu ñu waroon jël yëpp yu xel jàpp yëpp ni lii war nañ ko mën a def def nañ ko euh, bokk na ci fépp foo xam ne euh, courant doon jóge ñu Touba dañu def ay lignes yu yu wuute yi jóge kawoon yi jóge toobeen yi jóge feneen pour mën a yegg si ci Touba nga xam ne bu amee problème bi wet fekk beneen wet gi mun na ko wuutu andi courant bi ba mu yegg si noonu lañu ñu doxalee aussi ci mbirum poste yi noonu la ñu doxalee aussi ci wàllum yeneen jumtuwaay yu xeetu jumtuwaay yi bu mu mun a doon ba ci oto yi nga xam ne moom la ñu war a yokk di war a louer ay oto pour que bu paan amee fenn nit ñi war a mën a daw gaaw yegg si fa ñu war a yegg si noonu la ñu aussi ci wàllum nit ñi e, maanaam liggéeykatu Senelec yi nga xam ne ku nekk ci ñoom lu mu war a soxla ba ci masque yee poussière yeeg yooyu donc yooyu bu boo gisee ma ciy dugg ci détails yi bien que Senelec dina ci dellu si ci anam bu gën a yaatu c'est pour dalal xelu nit ñi rek wan ne que bu courant bi yegsee du ñu gis peut-être matuwaay yi nga xam ne waa Senelec guddeeg bëccëg nelawuñu fana yendaluñu fanaaluñu ñu ngi ci ngir ku nekk mën na ñëw ci màggal bi jàmm. seetlu ngeen ni que comme ni ma ko waxee courant bi mu ngi tàkk ci bëccëg comme ko waxee. Ah, bëccëg. waaw pratiquement éclairage bi yëpp. kooku yàgg ngeen dégguma ci àddu muy benn te courant boobu yàq la ndax fi mu toll xam ngeen ni mairie yu bëri fi mu toll kenn fay ci courant mairie Sénégal yi du fii rek donc tamit ba ma du waxuma ni Touba kese la ba ma jógee ba dakaaru ba fii romb naa ay bërëb yu bëri noonu la bindoo maanaam euh, nekk na benn façon xeetu càggante bi gis waxtaan naa ci ak maire bi léegi am nañ ay solution yu ñu ci waxtaanee ak directeur général Sénélec bi fi toog